ndokkeel Ibrahim Awadu, Ibrahima Wade mi nga xamee ni euh, suma doomu ndey suma xarit suma euh, rakk Maguette Ndiaye la ñu parrainé tournoi bi nga xam ni euh, dëkk yi nga xam ñoo wër gox bi ñoo dajale à l'initiative des jeunes de Kër Modou pour dajale organiser tournoi tournoi de la fraternité ñu rafetlu lool nga xam ni ay ndaw am nañu xalaat bi jublu ci pour lepp lu nga xam mooy bëggal ndaw ñi lepp loo xam ne mooy tax ñu montrer solidarité fraternité ba bi nga xamee ni suma frère Maguette euh, wax nañ parrainé nañ ko ko ah ñu ñëw teew gunge ko jàppale ko ci ba lii nga xam moom mooy def li nga xam moom lu lay def ci ndaw ñi jëm ci ndawu gox bi ñu mu am mu gën ci am doole gën ci am katan looloo waral suñu teewaay fii kër ci kër Modou fi nga xamni nak mën nañ ni fi la ñu bokk lu tax ñu bokk fi parce que suma xarit suma doomu nday suma genn walu Abdou Aziz mbay nga xam moy ministre conseiller président président de la république chargé des TIC nga xamni ñepp xam nañ suma digënté suma xóotaayu relation ak mom euh buñu mbir xewé ci goxam ma bok ci gox ba euh, ñu tuddé ko ko xam dafa se rek ci mom muy màgget munuma luddul téwé féké mom bu fi nekkoon ci bir rew mi dina fi ñew waye bu fi nekkul dina fi ñew bu dina ñew rawati na bu fekké ni woote nañ ko fenen ci liggéey bi bitim rew lu melni di xew maget di ci di ñu pare ne ko ko ma mën a teew ñëw euh encourager jeunesse bi encourager len tam ci li nga xamni sama e, e, cieur la ci walu sport. Sénégal jëm ci lu am solo manam di wara organiser Jeux olympiques de la jeunesse nga xamni buñ ci yeggé danañ soxla jeunesse bi lool lool lool lool buñ ci yeggé soxla Sénégal ubbi ay buntam accueillir la jeunesse du monde entier don war war na fépp jeunesse bi mu ngi yëngatu fépp ko xamni jeunesse bi ñu ngi ci jëm ci lu baax ñu mën fa téwé mën leen encourager lool moy li nga xam ñu ñëw fi may gëreum bu baax diko nak denk wa gox bi diko denk wa Modou jambar la ci walu politique ñëpp xam nañ taxawaayam ci wetu président de la république Macky Sall ñëpp xam nañu taxawaay euh, taxawaayam ci li nga xam ni mooy le président de la république li mu bëgg le 24 février 2019 muy jàmbaar lool ci gox bi. di def jéego yu am solo ñu ñëwoon tam aussi encourager ko ci loolu dénk ko waa gox bi ah ñi nga xam ñu mëna a gunge ko and ak mom pour que la nga xamni mom le président di wut 24 février mom mu mën ci jouer rôle bu am solo gox yi nga xamni ni këriñ dëkk yi nga xam ñoo nekk ci gox bi yëpp tam mën ci jouer rôle bu am solo may kontaan bu baax di satisfait trop trop trop trop trop ci li nga xamni gis naa ko fii une belle mobilisation de la jeunesse di sant yàlla bu baax a baax a baax tam. waaw man maa ngi tudd Maguette Ndiaye euh, nekk responsable politique euh, dëkk fii Kër Modou Ndiaye euh, di am vraiment kontaan bu mag si tournoi bi nga xam ne zone bi organisé na ko jël ma def ma comme parrain parrain boobu nag yaakaar naa ni weetuma si parce que bi may ñëw maa ngi ànd ak suma xarit moom Mamadou Thiam CRD. ànd ak sama frère aussi sunu mag sunu sunu aussi le ministre le ministre Ibrahima je pense que bi ma faire parrain bi aussi dama que sama téléphone woko bobu ministre Abdou Aziz Mbaye nekku fi ne t'en fais pas je pense que le pouvoir xam war nañ ko def jour bi def que Aziz nek fi comme bañ fee nek jappal man xamna digentem ak le ministre Abdoul Aziz Mbaye je pense que lolu jarul euh, waruma sax delu ci wat mais lepp lo xam aussi vraiment indi nañ ko fi si récompense lo xam dañ koy jàppale équipe bi lepp lu mën don mom moko fi indi tay mom nak gën mako ko dëkk Kër Modou yaakaar naa ni du tay la ñëk a ñëw Kër Modou euh ngeen ko mu wax léegi mom nee Kër Modou ñay la dëkk te li joxe aussi vraiment firndel na loolu lépp quoi en tout cas ñing koy remercier bu baax parce que je pense que le président Macky Sall responsable yi le la bëgg responsable yo xam dañuy engagé jege askan bi responsable yo xam aussi bu askan bi woté ñu ñëw wuy si leen te yaakaar acte bobu la def defaluma ko mais le ministre Abdou Aziz Mbaye la ko defal defaluma ko mais wa Kër Modou Ndiaye la ko defal defaluma ko mais wa zone nord la ko defal tey donc ñing ko ci remercier bu baax si initiative bi nga xam jël nako ak engagement bi nga xam aussi bëgg na ko accompagner waa kër Modou Ndiaye Euh, si lepp lo xamni aussi soxla nañ ko ci walu terrain ak walu équipement sportif ak yépp donc dañ ko ci remercier bu baax a baax en tout cas content nañ bu baax si organisateur yi ni ñu def tournoi bi euh, vraiment content euh, aussi si ni ñu ma tuddee ma ni ñu ma choisiré comme sen parrain donc lolu content nañ ci bu baax quoi di sante ñëpp di leen gërëm di gërëm aussi le chef de quartier bi nga xamni aussi lepp lo xamni quartier bi si quartier bi la jog le jëm si day jog taxaw si vraiment and si ak ñom donc dañ koy remercier bu baax si li nga xam ne yéene na ko si quartier bi aussi suñu borom mu mattali ko donc ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ko